yëpp fi ni sëñ Tuubaa féete war na noonu doy sëkk ñuy wut keneen fu mu nu féete ci loolu waaw ah waaw maanaam xam nga ñun ne ko Cheikh Mamadou Mountakha di waxee ñun ñi gëm sëñ Tuubaa ñun dañoo am tawfeex tawfeex nag mooy ñu ma ci mën a joxe ci misaal mooy nga am yitte ju la ñor xom yitte ju nga jóg léegi dajeeg yitte ja léegi yitte ja faju ca gën ja rafet anam loolu tawfeexu tawfeex tawfeex a ko dàq doo ci am benn coono nag te tawfeex a ko dàq ñun nag dañoo am tawfeex ba ñu sëñ bi jëlee boole ñi ci mbooloom mm-hmm. loolu tawfeex la moo tax ñun waruñoo yitewoo leneen loolu sëñ bi mm-hmm. jamono ji ñu toll nag dafa laaj yeewu mm-hmm. ndax euh, ni ma koy waxee rek gis nga say saytaane bu jógee saytaane du dem fa ak njabootam nekk mu di lu fay def fa nga xam ne fii fa la yàlla nekk foofu la saytaane jubali ñi nga xam ne ñu ngi ci ndigalul suñu borom. ñooñu la saytaanee song. Ah. ngir ñu mën a bàyyi ndigalul suñu borom dem ci ndigalam. kon nag bu ñu saytaanee song nañ xam ne ñun dañoo ne ci ndigalul suñu borom. Hmm. ku nekk ku nekk ci ndigalul suñu borom nag doo gestu. ku lay ayu bu ko wuyu. ku lay kobos bu ko faale. ku la xëcc lànkal. wéyal ci li nga nekk rek. loolu la ñu war a lu fayda jooju daal la ñu war a am. waaye mooy def ku wax nga wuyu ko. ku la woo nga nu mu tuddati ku wax nga tontu ko. Hmm. du sotti nañu xam ne Serigne Touba daa jël li gën la gën moom la sëñ Tuubaa yor tey jii bu yàlla doon jëmm ji wàcc ci kaw suuf sëñ Muntaxa koy ganale bu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wàcc ci kaw suuf sëñ Tuubaa koy sëñ Muntaxa koy ganale kon kooku bu ñu ko attaqué loolu c'est normal attaqué ko ndax cible mooy cible bi. waaw dëgg la seytaane ah. du di seeti. Euh, dalaay ma ne wala Samba wala nu mu tuddati fi mu yaakaar ne fi yàlla ne. wutu yàlla ki fi la ne. nit ña fa nekk di wut yàlla. fa lay dugg di yàq. moo tax bu ñu attaqué nit ku baax. na sant yàlla. Mm, gis nga ñu bon ñi. Ah. kenn du leen attaqué ñu bon ñi. kenn du leen attaqué. Ah. Ah, kon murid yi. bu ñu gisee ay nit yu wane ci biir murid yi lañ bokk. génn di waxi safaan. nañ xam ne déedéet sañ bi mooy diagnostiqué. dëgg la gerte booy tànn. ba ci kaw set da ngay jeqi ngay boo jàqee faaw ay tànn génnaat. ay tànn la tànnit lañ. ay tànnit lañ yu ñu war a jël sànni fële. dëgg dëgg la du daal du yàq dara ci ci jiwu day baax rek. day defar rek. waaw sëñ bi mooy diagnostiqué. dëgg la boo gisee lee léeg politique bi coow li bari. Ah. mooy bu coow li baree baree bari ba dal. Ah. la cay génne. Ah. njariñ rek lay doon njariñ lay doon. ndax nit ñi bu ñu seen seen xam-xam bariwut. waaw faw coow day bari ñu door a xam tuuti. ñu door a xam tuuti. Hmm. bu ko seen xam-xam mate woon. coow li du bari. waaye seen xam-xam da ko matewul. da ko matewul waaw dëgg la dañuy neex a nax. waaw dañuy neex a nax. bu tali bi nekkee nii. ñii taxaw fii sol lu weex. Mm. ñii taxaw fële sol lu xonq. kuréel gu ci ne. Mm. la cay baax mooy kenn ku ne. xam kuréel gi nga bokk. dëgg la waaye yow bu fekkente ne. sa kuréel. waaw mënoo leen a xàmmee lu dul mbubb mu weex mi ñu sol mbaa mbubb mu xonq mi. yow sax xam-xam bëriwut. dëgg ndax loolu mooy waral boo légee. waaw ma dem mu xonq. Mm. ñëw nax la nax la dugg ci biir dugg biir waaw. mbaa ma sol mbubb mu weex ñëw ne ci laa bokk te fekk bokkuma ci. la loolu nag mooy lan mooy ñu fexe ba xam li nga xam ne moom la ñu war a xam ñu def ko ci suñu bopp. Hmm. ba lépp lu ñu war a bañ. automatiquement dañ koy xam dañ koy bañ. lépp lu war a bëgg. automatiquement dañ koy bëgg am na ñoo xam ne bu ñu waxee automatiquement war ngaa xam seen tontu. dëgg la sëñ Mountakha bu ñu la suba dana waxtaan war ngaa xam lan la war a wax. dëgg la maanaam waxtaan sëñ Mountakha dalaa war a fekk ci kaw yoon wi. waaye sëñ Mountakha wut wax ba laaj foofu fu wax jë jëm. donc te waxtaan bi dem ci groupe bi rek. waaw koy mi ko. xam nga dañoo def débat boo xam ne dama ca wax ñett waaw. Euh, wàcc sa kàddu tàggatoo mel na li ñu daboon ci waxtu wi. kon sëñ sëñ Lamine. loolu laa koy wax waaw man man nga àggale loolu ngay wax. waaw lii wax rek boole ko kàddu tàggatoo waaw. wax ji ma wax barki démb nii. Mm-hmm. sëñ Moussa wax na ko ndax fi ne. dañ dañ cee def waxtaan boo xam ne ci suba si ci groupe ci ci ci samedi waaw mu xëy mu xëy fan jaaroon rek mu jaaroon foofu mu jaaroon ko waaw si Moussa daan loolu dafa bokk kër yi ngeen yaroo lay doon mm-hmm. ndax fi ne xalaat bi yéen a koy bokkale mm-hmm. waaw waaye sëñ Tuubaa ci mm-hmm. boppam maanaam képp ku bokk ci moom li sëñ ba jaax jaxate wax dalul la ceew la sëñ ba jaxate dafa layal sëñ Tuubaa ba mu liggéey sëriñ bi lay ubbi biir ak bitti ngay niru dex jox lay dërëm teg ci ay ponkal te galul la lëf mësi su ko dégg cay maam ak mamar ci ba tey lii bamba rek ko sañ lii bamba ko ko def kenn ku yaa ngi am mu lay dawal di la joxe dërëm di liggéeyoo suñ tuwaa defal loolee boo ko santee mu dolli la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu